voilà mbokk yi ci wàccaay màggal gi yàlla dogal tey ñu teew fii ci daaru almuxti dëkk maam na Birahim di ndeyjoori Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nga xam ne moom la ñuy waajal bésam googee mu digle na nu ko santaaleel boromam di màggalu Touba fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru safar waaye yàlla dogal ci wàccaay googu tey ci mbégte safar gi rek Cheikh Ahmadou Kara jàmbaari Serigne Touba joojee am lu mu woote fii Kër Nourine yàlla dogal nu daje fee kenn ci si kërkat yi nekk ci Sénégal. ci melo mélodien ci ñi nga xamante ni dañuy faral di bàkku turu yàlla ak mag ñi baax ji fi nekk mu tudd Serigne fàllu ngoom ñi ngeen miin ko ci turu Fallou Thiès moom la ñu bëgg sekkal waxtaan wu gàtt ginnaaw bi ñu ko bàyyi mu nuyoo ñu dugg ak moom ci li nga xamante ni ah fan yi mosal na ko askan wi ci lu am solo ci Serigne Touba. waaw eh, yaa Moussa ñoo ngi leen di nuyu te di am mbégte bu baax a baax a baax. di ziar képp koo xamante ni rek euh, mi ngi seetaan euh, télé bu mag bii di Sénégo nga xamante ni tey mën naa ni euh, sénégalais yëpp wala ma ni àdduna bi yëpp kenn ku ci nekk rek yaa ngi am mbégte ci jàkkaarloo bi nga xamante ni yéen a ngi koy jàkkaarloo ak itam yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy wane. kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni seen soppe seen xarit moo leen di nuyu muy Fallou Thiès comme ni koy yaa Moussa waxee di am mbégte bu baax a baax a baax. gan gi nga indil waa Sénégal. te indi ko ci wàccaay màggal gi lan la leeralal waaw li nu indi euh, te indi ko ci wàccaayu màggal gi mooy euh, way wi nga xamante ni dañ koo jagleel ku tedd ki euh, ndax ay jëfam yi mu jëf ngir doomu aadama yi. ak itam xettali gi nga xamante ni xettali na ko doomu aadama yi ñu tudde way wi kay yelloo jaajëf nga xam ne sunu wayjur di Serigne Mbaye Ngom Ridial di ko ñaanal mu yàgg fi moo ko taalif jëmale ko ci ku tedd ki fàllu woy woowu maanaam ci njàngale tey lan lañ ci mën a déggee Serigne Touba bëri na luñ mën a xam ci moom waaye ne ko jaajëf am maa nit ñi xaw a fan ko war a teg ak naka lañ ko war a dégg waaw xam nga yaa Moussa li nga wax xam nga euh, ni ma ko mën a waxee euh, sëriñ bi daf nu dimbali waaw daf nu dimbali ci zahir daf nu dimbali ci baatin ndimbal loolu nag euh, ku la defal lenn lu mu ndaw ndaw ndaw yelloo na ci yow nga ni ko jaajëf man lam yaskuri naas laa yaskuri llah waaye nag sëriñ bi moom cant gi nga koy cant loolu force la ci ñun parce que daf noo sonnal démb tey door a ñëw moo tax ku déglu way wi incha allah ku ko xool ci sunu euh, seen yi euh, di nga di nga di nga mën a décortiquer wax yi ak paroles yi nga xamante ni moom moom moom moo ci ne ak itam njëriñ gi ci am waaw yóbbal bi moom xanaa daal ci barkeelu tuuti rek su ko defee ñu séntu album bi incha allah mois de décembre ma dellu jug fas yéene gërëm ka yelloo jaajëf Abdul Xadimi nabiyo ku nekk war ni ko jaajëf amul morom dadi kenn ku jëf ba buur ni ko jaajëf mu dellu jëf ca ka jërjëf ka buur ba woo ni ko jaajëf guddi gi rañaan ga la buur ba teral yonen ni ko jaajëf assalaamu alayka buur ba ko wax yonen ni ko jaajëf attaxiyaatu lillaahi wa zakkiyaatu ni jaajëf jox kay jule ki nga neelam dolli ko leer ak i jaajëf kon ku wax sëriñ bi ni jaajëf yonen ba wax ni jaajëf buur yàlla wax ni jaajëf nga am ngërëm ak i jaajëf jaajëf Serigne Bamba jaajëf jaajëf xasal Mbàkke jaajëf barke Borom Touba